national 2 de Louga quartier Guela comme ni ñu leen ko waxee woon rek sànq rek ci lancement bi kii di Aba Galañu Sabar tey moom la ñu fas yéene jàkkaarlool fii ci studio Serigne Bassirou Fall bu Ndiakha Fall jàkkaarloo bi nag li ko wund moo di euh, nouveau single bi nga xamante ne si tey la war a génn di le 28 juillet 2020 Aba nag nee na taamu koo génne France. nee na taamu koo génne États-Unis taamu koo génne Dakar taamu koo génne fenn fu dul fii ne si fii la dëkk muy Kébémer. mais rajo bi mu ci taamu moo di rajo Thiès FM Kébémer 89.6 te ñu taamu nag moo di la sanita buuru Bande FM bi d' abord Aba ñu ngi lay remercier bu baax a baax sa disponibilité ak taamu gi nga taamu def sa sortie fii ci rajo Thiès FM Kébémer 89.6 rapidement nga daal di def sa nuyu ak sa présentation Anita sister sama xarit. waa gis nga. di la siyaar ci sa disponibilité. Mm-hmm. saa su ne vraiment ba ma la xamee yàggul waaye boobu ba léegi yàqu ci dara ba tax na maa ngi lay nuyu nuyu bu pata à part du ma la boole kenn su ma jógee ci loolu nag damay nuy waa askanu Kébémer gépp mm-hmm. particulièrement nag waa Ngéwël fi nga xam ne fa la sosoo juddoo fa ñuy nuyu ñëpp di siyaar ñëpp naan leen tey daal dara du yomb asista ani tarek ay ci mago ke tay dara du yomb ak abadja ka lo class tani ta fi ci sidio serigne basirou fa bu ndiax fa la tay nak ñu ñew ci li nga xamanteni ci mom mo wundu jotaay bi single bu bes tax li nga xamanteni ci ki di aba galani sabar gene nak ko single bi nak mi ko tuddé jëlal sa ndew nak tay nak di ngeen gis ni allah rabbi voix bi talent bi mi ngi fi gëm-gëm gi mi ngi fi abanaka di fils du terroir ñu xam ne doomu Kébémer la léegi dañuy daal di def nii rek daal di déglu son bi rek te daal di ñëwaat léegi rek ci waxtaan

mu suuf ne sabar demal ba ngewal fekk fa Aziz Mbaye góoru Ali An dana la teral ci ngewal waaw abaa nag moom benn nit la bu simple bu bàyyi faale boo xam ne xale la bu juddoo Dakar fu mu naan yëmbal judd ci benn askanu ngéwal sa màlle Jóob di sam papa pa géwal kat naan ko borom galañu ki nga xam ne ay galañu day faj man sam papa ku ko xamul màlle Jóob dégg nga ko moo doon nit boo xam ni ay galañam da ko jëlewoon di ko déjee nit ñi nga xam danoo feebar ay rab di leen mu leen tëggal pour ñuy tane tëgg na ko ba États-Unis kon kooku xam naa ni li def bàyyi na ma doon xale juddu juddoo ci këru ngéwal comme ni ma la wax ñoom man dañ ko def wacc ci bay ñu màgg fas yéene do relève bi ma juddu ci doon juddu ci keur gogu sox lool musuma bëgg lool ay sabar di tegg ci bidon yi ci niir yi di tegg fu ne ba màggaale lool nak ñu kémer <laughs> sama yaay ñëwee keemeer ñu lañ bok di jaay mu caam mi jaay la <laughs> ma nekk fi gisoon fi benn groupe boo xam dafa ma neex trop muy sunu groupe

géej gi ñun la yow abaa da a way wala da ngaa dem ci ci a way ba lu ñu am non ñun moo ëpp moo ëpp seetkat ñun buñ tëddee guddi suñu rab wannu ñun soxlawuñu seetkat déggoo li ma la xanaa si début bi sam papa ay galañam day faj kon doon na loo xam ne dañ koo doon mm-hmm. wala déggoo ma ñu waa ñu judd ci ci xamuñu lu dul lii ba tax na ñu def ci expérience boo xam ne dafa bari ci musique Sénégal fii ñu def ay fu ne di tamit fu partout tamit dans le monde aussi kon bu nu màggee tamit ba benn moment ñu gunge ñu baree baree bari c'est normal coronavirus am ñuy ñaanal ñuy ñuy lancer waale message di wax naan yàlla na ko fi yàlla jëlee ñu toog durant benn benn ay mois on a rien fait ma ni attends je vais jug damay jug dem studio

Euh, ba ma déggee sa baat laa xam ne nit ku baax nga te mënti du baax yi boo ko wér. man man sama Ndiaye <laughs> mais lan mën nañu xam euh, Aba sa sa sa carrière fan nga débuté. waaw sama carrière mooy li ma la wax ba ma juddoo man laa tëgg ba ma juddoo ba màgg laa tëgg doon ko sopp ñu juddoo suñu kër di tëgg ndax foofu ay sabar fi ngay faq solo ci ngay màggee mhm. kon particulièrement rek boo boo juddoo mu boobu moo lay topp par force dangay tëgg par force la. mais bima ma ba am quelques années yi dama fi kay Kébémer ma fekkoon fekk fi benn groupe bo xamne dañ ma estimé dama leen estimé lool muy ngëwëri mu ma ñu doon groupe bo xam ni bi may doon xale bi may doon xale dama leen daan gis bu daan jé dama ñew pour bokku ci ñoom j'étais pas à ngëwëri mais bu ma daan ñom buñ daan dama ñew yakam tay ñew bokku ci ñom ba ci yag may bokku fofu di malax tumuni tumuni moy bi gëna ndaw ba ma gi gëna ndaw may malax fofu bu démé Casamance lélé sama xol toy ma joy wét waaw c' est vrai léeg-léeg sama xol tooy ma jot ñu dem Cap moo wàññeeku demaat Dakar ma ne su ma demee suñ kër aussi tamit damay continuer tëgg parce que ñun foofu waaw bu ma demee tamit suñ kër Dakar damay tëgg parce que ñun foofu ay sabar moo fa am su ma ñëwee fii tamit suñu kër ay sabar moo fi am kon man ay sabar rek laa xam may def loolu def loolu nekk ci ngër mu di jouer di jouer ba màgg ci kër am na ay temps bu ñu dese galaya bi daal ma mën a dugg dama daan toog ci ginnaaw ci ginnaaw galaya bi noonu kii bi nekk léegi sapeur bi rek di get samay son ba ah mais foofu laa ko daan jàpp ba soirée bi jeex ma yokk si nànk dem ñibbi. waaw loolu la parce que su deret la nekk mm-hmm. si côté ndey ci côté baay mm-hmm. boo dee baay danga naan day jaay jooju ak day jaay faral la mu la jooju day jaay kon da mu géwél pire laa boo nee yaay danga naan ma ma yaa si ma sa bigé wala boog waaw non doo ni ma sa bigé ma yaasin sax danga naan ma war yi nga ne yaasin ma ca konga. ma yorul bigé Ndiaye waaw eh, ma kon. waaw yooyu mën a kenn du fa génn parce que ngéwér nu famille la mhm. famille kenn du ko tas famille mënut a tas mhm. famille lu ko suudee mhm. ba tax mu dëgër loolu dafa des kenn mënu koo génn ngéwér mu man je suis toujours à ngéwér mu parce que maay ngéwér mu waaw mais man maay ngéwér mu eh dama la bëgg wax benn chose dama lay wax te mu man sama parcours ak ñoom dama doon xale ba màgg ak ñoom ba mature ak ñoom dëkk di def lépp la ñëk a jël sama responsabilité sama nijaay ni ma album bi da ya ko teug fekk man sama mak Sidi ñoo fa Sidi febar mu ni ma ah album bi ya ko teug de du mu Bakkan sek Sidi Lam bien sûr man ak mom ñoo fa nekkoon maa ko daan mbalax muy teug mako balax di téye rek sama métronome ba 2010 mu febar sama nijaay ni ma duñu wo Thio Mbaye duñu wo kenn duñu wo Mbaye fay Faye wo Bakkan sek yow yaay teug album bi man ko pourquoi pas te bobu xala la ñu dem studio mooy studio bi ma dugalee tey chef d'orchestre bu mu Papis Ndiaye moo xam ne moo nekk ci Wally Seck di ko gunge ñëpp xam ko ci musique sénégalaise ñu dem studio ñu témoin Papis Ndiaye woo ko ci ruxu ni ko mais booy bi jàpp ko de bu subaa àndal ak moom moom kese mu ñëw ma dem man kese di nekk ci studio bi di arranger di dugal ba album boobu taxaw muy jàmm ak kii bi nga album bi mujjee def njër mujjee def mhm. d'ailleurs loolu ak ñu defaat benn album percussion man maa dugal lépp man ak sama benn xarit particulièrement boo ko dégloo da ngay foog ne ay nit ñu bari ñoo ko dégg damaa jël sama responsabilité di ko teg waaw loolu loolu loolu déggoo li ma la xam nga <laughs> loo gis buñ ko développé rek buñ ko buñ ko wanee rek mu feeñ parce que ñun mosuñoo bëgg a fës mhm. on n'est jamais être devant mhm. on est toujours derrière mhm. et on fait beaucoup de choses pour être devant mais on ne on voulait devant parce que nit boo jiitoo say ndijaay ak say mag da nangoo nekk seen ginnaaw ba bis bu nekk si kanam tax jotee rek da ngay day yomb pour nga nekk si kanam ba tax na loolu lañ doon defulaale di joobaaleeg loolu muy doon sama nijaay joo xam ni il était toujours confiant en moi gëmul woon kenn man la gëm lu ma dëgg loolu la lu ma def loolu la aussi tamit lépp lu ma musaane def fu mu dem déglu ko tamit doo mm-hmm. parce que li ñuy def mën nan ko jàng nan ko te xam nan ko ma leen di nuyu à passage di wax tey ñun ñëpp lay dégganteel ñu nekk France Bouba Ndiaye d'ailleurs moo mm-hmm. ko nuyu de passage album moom ma dem ba Europe dugal ko enregistré ko kon ça ça veut dire que ñun géwél bi la lool du lu ndaw Sidi job damay déggante mom di bu gay ñep ñoom Sang Mbaye Bouba mbay Fall ñep xam nga déjà waxale ko moy sama tons moy sama papa moy sama xarit lool kenn waxale ko wa tey ngeewul dafa wara a do do serignom wa dama tarbi nak ginaaw bi ma dondo ndax ndono dafa fo to lu way dondu mu deugal ta dono rek mo wóor duma ko doon sama papa don ko sama sama waa kër ndey nàmp ko ndax ween dafa fort dama jangi man dama rechercher dama rechercher beaucoup dans la musique waaw dama tarbu dama jang lu bari bi may doon xale di ànd ak sama benn mag bu ne paasan samb ma ko nuyu de passage moo daan tëgg ay kasetu farlaw ba ngay dégg ay ay ay ay morceau yu bari senegal mo ko daan ñu ñoo daan studio 24 heures sur 24 mhm. may dem diko sétane ba ci ak mu nan ma kay mbalax morceau

damaa mbalax tungu ni ca jamono jooju mbalax mbëmbëg tamit ci jamono ji dirisa ci jamono ji damaa def saison yu bari waaw dañ cee wara a son bi parce que parole yi bëgg naa ñu xuus Kita batal-batas. Anita. Ah. Gars yi commencé dañoo yëngu de. waaw mais dañoo war a ba jël jëlal nga war a ay 70 la 426 97 yàlla. allo ça va. waaw ça va Aba laa soxla. Aba wul. ah li ah, tax

Yes, sir. The Buddha took by one. Yes, sir. The Buddha hồi sinh mà bạn bắt bạn của hồi bây giờ còn như vậy đấy không thể làm còn rồi bây giờ thì nó rất là thế cái là wala fakor ah kok kok sama wala kon dena kontan na ay kama gun tanong kan man

on. Well, well. Njaajaan jinne ni bés amin wae kotak nang jiwa di pirgu yi bari bari maa def benn par benn dëgg la yaa ngi may dégg nga dugg ñu mbiram may siyaar sama xarit Cheikh Fadel Jimbira mm-hmm. ma bokk ci album moom mm-hmm. Cheikh Pape Sow Jimbira mm-hmm. ma bokk ci album moom sama nijaay Sadou Mbow ma bokk ci album moom sama ñoom bàjjen Oumy Mbacké ma tëgg seen album kooku ba muy ñëw dakaar di tëgg ma di ñëw di studio dafa ñëw ci studio bi ñun borom studio bi ni ko ki lay tëggal Abba la tudd sama benn booy la fii lépp lu fi am moo koy tëgg booy bu mën a tëgg la ni doomam la waaw li yàlla def dama jékki-jékki rek salaamaaleykum mu ni waaw yow kii sama doom la di parce que li ma lay bëgg a ni mooy liggéey rek moo am solo adduna lépp looy def na nga jàng ginnaaw boo dondoo am na solo mais gëstul mhm. parce que dina la dimbali boo bëggee waaw boo bëggee ak fenn waaw faa nga gëstu faa nga gëstu ba tax na ci loolu moom mu permettre loolu may def loolu Dakar di joué ñu bari mhm. di joué artiste tamit ñu bari ci yeneen fànn mhm. parce que damay tëgg sabar damay tëgg sorba damay tëgg jëmbe damay tëgg tabala damay tëgg xiin di tëgg ay bukarab waaw dama jàngi ci jàng lépp moo déggu li ma la album mu jàngi yëpp maa ko tëgg ah déggu ma la Fada Jimbira ni la Cheikh Fap soo Jimbira ah ñëpp jàmm déggu li ma la ku seqalul jàmm du ñëw studio ba nga koy dugalal hmm. man yàlla ma dimbali loolu je suis toujours hip avec tout monde te àdduna respect da cee am solo hmm. nit da ngay cëral doomu aadama lu tax sab cër kenn fànk ko hmm. man tey kaymer ñëpp san xarit la ngéwul moom waxaale wu ma ko xale yu ndaw yi ñëpp samay xarit la barke Seydina Muhammad loolu yàlla moo def loolu quoi moom ma ko defal sama nijaay mi sedda la ci man li may yax nii tey waa Ngéwél ñëpp xam na ne loolu dëgg la man mag ndaw ñëpp ma bëgg ñëpp ma bëgg kay mel gi jakarta bu ma jël dama naan la eh ah. waaw mais mais xam nga Anita àdduna amul solo fii loo fi gis day jeex bu baree jeex bu néewee jeex loo ci gis na rafet boo doonee xale am foo juddoo xam ni nga juddoo xam li nga doon da nga conserver li nga doon ndax ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom mm-hmm. te àdduna nit li nga doon da nga ko war conserver saa su ne mooy sa dignité c'est am mm-hmm. loolu bu ko kenn nangu ci yow man je suis toujours là boo dégloo morceau maa ko def exprès mm-hmm. defuma ci musique defuma ci dara maa ko def seulement percussion percuté ko parce que je suis un percussionniste et je suis fier être percussion te sabar damaa teral ah, sabab va na fune mhm. defal na mu lu ne je mhm. naa ay scènes yo xam fay artistes yu gën ngand Sénégal ñoy taxaw duma ma mhm. ay Dakar Music Expo c'était un festival qu'on a fait en Dakar waaw man seen yi ma taxaw nag bari Dakar moom fi Sénégal j'ai fait tous les festivals j'ai fait tous les scènes j'ai fait tous les scènes j'ai fait tous les festivals D'ailleurs, ailleurs la c'est récemment avant coronavirus bi dafa amoon benn festival bu amoon Dakar ñu tuddee ko Dakar Music Expo benn grand bu tudd Doudou Sarr muy ménager Youssou Ndour moo ko doon def. mais bi mu koy def da doon sélectionné ay artistes. Mm-hmm. bi muy sélectionné ay artistes fekk ñu bëggoon jaay ay son Mamadi Bango. son bu Youssou Ndour Rokhaya Traoré xam nga ñu mag ñoo seen seeni son mais bi ma bi bi xoolee Séné amul musicien sénégalais. Mm-hmm. ñëpp ay ñag la ñi nga xam ne ñoo ñoo téye musique Sénégal ñoo ko ŋànk mooy ñag yi. ñoo mm-hmm. ko ñoo ko doon mais man lañ jël comme percussionniste institut français ko doon defee. joué les vidéos man lañ jël comme percussionniste bi ma ñëwee répété. danoo ñëwoon pour ma jouer morceau Youssou Ndour morceau Youssou Ndour mooy apartheid ah, waaw boobu lañ bëggoon ma jouer ko bu ñu woy Nelson Mandela kese mais bu ma ñëwee répété ben yoon mhm. non dañ ne ma non boy tu vas jouer tous les morceaux parce que dama indi benn couleur parce que dama indi benn couleur bi ma indee couleur bi ñu ma jouer ba pare danoo xam ne kii c'est une professionnelle mhm. malgré ko gisewuñ ko comme ni ñu gisee Mbaye Gueye mais il a le talent mhm. de plus de Mbaye Gueye parce que moo tax ma jouer album moo si bépp waaw mos apartheid waaw xam nga man tëggantu yombu na man li may tëggantu yomb na waaw xam nga <laughs> boo gisee apartheid sax béykat fee lim ci tëgg roppalaat muy naaw loolu dafa yomb booy càkki càkki taas ki taas ki taas tàkki tàkki taas bàcc ki cabra càkki tat bàcc ki ket gees ket gees gees ket gees ket gees gees ket gees gees mais après dafa teg loxoom nag def ay bukarabu <laughs>

dañ koy buuxante ndax yow yaa baax. yow kenn gënu la. yaa bëgg say yaay yaa tan tan bokk ko. waaw ndax yow dëgg la yaa ñu yaa ñu def. aw ma ñu dul yéen. waaw kontaan naa. waaw kontaan na lool affaire bi neex na macha allah. allez merci. lii la ñu la doon si yow nga gis lan ko. na merci beaucoup. allah mais mais Aba sa sa sa voilà Alioune voilà. voilà Alioune tam nan voilà voilà nan ñëw ci single bi nag. parce que morceau bi dama ko fait, techniquement. Mm-hmm. je l'ai pas fait juste rek comme toutes les morceaux. Mm-hmm. c'est possible de c'est possible de composer un morceau ndey mm-hmm. mu lëmbal. mais boo dégloo morceau bi avant ma dugg de dama def entretien. dama defee entretien dama def bàkk boo xam dafa technique. ma ni ba mu juddoo dafa yàggul ba tax na li ma xam dafa bariwul. man yett say sabar jënd say dar yett say tet jënd say mes, mhm. tëggal say gañu bëgg gisuma lu ko gëna neex moy manam ñun lepp lo xamni rek ñu koy am ci aduna mhm. tim suñu sabar mo nu ko daxal mhm. gisuma lu ko gëna neex te sabar yu ñuy tim tim nañ ko ci endroit bu ne tim nañ ko fu ne kon gisuma lu ko nimbal nimbal neex nimbal, nimbal nimbal nimbal nimbal nimbal nimbal nimbal na ca fekk loxol borom ci bir ni nimbal ku lamb ya tay dagul fa la nabe ma ne ana Sidi Lam. Ah. bàyyi ba mooy Sidi Diop bi ma la doon wax. yóbbul ma bàyyi Fallou Ba muy Ismaïla Sall. mu nekkoon njëwër nu. ma ne ko mu daal di bëgge. <laughs> ma ne sang mbaay sax dafay bëgge. njëwër nu la nekkoon. Eh, sang mbaay da daan simb mais dafa nekkoon tamit njëwër nu di tëgg ah, sóoru baa. waaw mi ngi nekkoon ci biir njëwër nu di jouer sóoru baa di def ay simb. Uh-huh. moo tax ma ne ko moom it dafay bëgge. bi ma ko wàccee dama ko wàccee ak rim bu ndëj manitasi bahkeken buradaba cececen burakin mbata bah keken bah keken keken bah kidda buradal ba taas man nit day fonk li mu moom ndax as gor bu bëggee fu mu dem daan fa day fokk li mu moom loolu bi ma koy wax maa ngi ko inspiré wu samay sabar man ni ma fonkee samay sabar fépp fu ma dem ci àdduna bi mhm. ak musicien bu man ti doon mhm. su ma wàccee tubaab bi dañuy ñëw ci ma di xool samay sabar di ma jàppale di ma di waxtaan ak man mhm. naan ma instrument bi noo ko defaree lii ak lii ak lii

waaw kooku sama jabar waaw Séri kooku ci loo nekk waaw waaw Séri allo ah. waaw maa ngi nii Mounass di kontaan jot maa la gën a bëgg ndeysaan da ngeen a baax kenn Wako Kumunas Love, Seri Mara, bisa Majabat. Halo. Ah, kooku nag dama ko naan mu mu jitu jiitu ci kër gi defar kër gi. di awu buru këram. wah wah wah wah yow yow yow. amin amin amin amin amin amin Pak, kok sama sama Jawa Rubigana? Iya. Desa.

waaw kooku sam bàjjana am nit tan bokku lépp nag tata Diallo ñu ngi defandoo ñu lépp amin amin bàjjen kan bokk lépp ndeysaan kan bokk lépp bàjjen yaay mun a waaw moom kooku ku mu jeex sa mbàjjan la ku mu jeex sa mbàjjan la ki ci topp kooku mooy sama jabaru di jaay mooy sa mhm. xam-xam mooy sa ku ne xam na ni ay galañam dafa mën a dëgg lool macha allah mhm. bi mu mujjee dem France sabaram man la ko may ba ma ngam dama fekk ba ma ñëw mu ne ma abaa mu ne ma mu ne ma sabar bi yow laa koy jox mhm. ndax yow laa ci yaakaar te xam naa ne di nga ma ko defaral ba mu baax ma defar ko ba mu rafet tamit tuddee ko ko ki ci topp muy bàyyi mooy mooy kooku nag mooy yaay Ababacar ban ma ko tuddee boobu xale laa ci moko tuddé dina dinaa ñëw ci mom damay bay ba jeexam mais aji leen na dama koy faral nan ko ya jiitu ci kër gi défar kër gi di aw buru këram ah. morso la bo xamni mom dama koy défar apa part ñëwagul sam bajjan mom duma ko wax dara mom moy sama bajjan di sam bay teg ci nak di sék sama di jaay ah. kon xam nga ni géwal ah, dafa neex waaw dana weccoo nee naa sama papa benn jour dama ni sama papa wa papa no def bo weccoog sama nijaay xana sama nijaay dafa ñëw di takk rek di sama bajjan daanu wa dafa daanu Wow, dama ni mbay demoon ba ba ma fay galañ ndax no, non dañ koy dañ ko parce que wax la bo xamni dama ko dama ko compresser mais man nang ko ouverture ndax àllub kajoor fi àll bi dafa russe russe bi dafa am doole te dara ji fi nekk fii muy ñu Dakar wala muy ñu suuf jënd lay sax doonul galañu n'importe quoi galañ la boo xam ni ki ma ko ni mbay moom sama rakk la ju mën a tëgg macha allah am ci moom yaakaar fii ci biir dëkk bi xam ni moom dina jël suñu relève man ni ko demal ba àllub Kajoor utal ma fay galañ ni ko ab galañ nag lu mu dëgg wax la ci ku ko xam waaw man ni ko njaajaan jinne ab géwal bu ko dégg daw sax njaajaan jinne ni bés géwal yépp xam nañ li may wax waaw léegi muy ba xam na géwal yi xam nañ ngay wax mais ñun jigéen ñi ñun xamuñ li ngay wax dama waaw ay waxu koy ko def waaw waa dama ko waa dama ko ko def xam Ça va? Ça va très bien. Man la ಸರಿ ವಾಸಲಿ ಸಮರಕಿಜಿ ಅಲು ಸಲಿ ಅಲು ಅಲು ಸಲಿ maa ngi sant yàlla alhamdulilah. ndeysaan yéen da ngeen a baax. kenn gënu la sali. ndeysaan da ngeen a baax rek. waaw loolu mooy yoon. ndeysaan dañ bokk lépp. kenn gënu leen. kenn kenn gënu leen. kenn gënu leen. amiin tam bokk lépp. amiin tam bokk lépp c'est-à-dire kontaan naa. kontaan naa sama rakk. ndeysaan ay jama ko. kooku sama rakk la. Uh-huh. suñu ñaari mbéy boobu benn baay. kon loolu dafa fort. Uh-huh. ma naan la àdduna booy lebal rek lebal nit ñi lu baax. ay jërëjëf di ko tuddee sama dafa ma intéressé nag. waaw mooy jaajëf dina jooju. ah di béy. dakkal sa loxo bàkk boobu. Uh-huh. paa yi ñoo ko daan tëgg. kita tabrat kita tabrat masa kita tabrat tata kita murabras murabras murabras gas gas guys guys léegi man nag bi ma màggee xam ne samay maam ñoo ko tëgg damaa ñëw ba ci dëgg bi ma ne leen maam yéen yéen a tëggoon lii waye nak tek sañ ko koo yak kon la sa mom si to koy jël kon du yon motax bi boko tege mani tak ni ki ta tabrat ki ta tabrat parce que ki ta tabrat ta ta ki taas daal di rek tabax rek tabax ki ta dafa ta ba takit sa bax daal di jub rek ta dafa ki ba ca cakit bax kenn kees kenn kenn mbax cakit gi ba jee Thank you. Wow, wow, loolu loolu baax na. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ndeysaan naka bu. waaw sama nii. sama sant yàlla bu baax. maa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm baax a baax Aduh. la. allo. allo. maa ngi lay. lii ma ni kookan la. Aduh. Aduh, toog Ah, fagini mara gina bek yau ja bokun dai. Wa billahi da sa daga bah. Jojo sama raki jojo. Tan bokku lepp. Tan bokku lepp yau ñoo bokku nday. Yau <laughs> ñoo bokku yaay. Kontaan naa jojo. Jojo. Jojo. maa leen gën a bëgg. allé Jojo. Eh, Jojo. émission bi bu ngeen ko bëggee seetaan en direct da ngeen dem Kébémer TV. d'accord waaw loolu bi nga xamante ne fa la façon nekk euh, ak Mor Thiam Ndiaye en direct ci 89 point 2. d'accord d'accord ay jëmale ko. merci beaucoup bonne journée. Aba. waaw Jojo Jojo moom ñoo bokk yaay. ah yéen a bokk yaay moom waaw moom Mame Ndiaye yaayam. moom dafa dafa waaw day sama xarit yaay nag mm-hmm. sama yaay bi ñu dëkkee mm-hmm. moom guddeeg bëccëg suba ngoon mu ngi suñ kër mm-hmm. waaw moo tax man ko yow ñoo bokk yaay xam na li ma ko wax sama taan maam Ndiaye xam na te taan maam Ndiaye rakku rak magu ndigal la waaye ndax tey bàyyam Fatou Mbaye yaayam kenn gënu leen benn bopp lan mooy askan bi allo kooku allo frère ah Moustapha waaw billaay maa la gën a kontaan maa la gën a kontaan sama xarit billaay Moustapha maa la gën a nekk dégg ndeysaan ndeysaan déggal loolu ni ko waa ñëw daaw rek yëngu taxaa billaay tum Moustapha ndeysaan ndeysaan da ngeen a baax ndeysaan ndeysaan Moussa Fap ñoo far maa la gën a dëgg yow kenn gënu leen kenn gënu leen amin tafa amin tan boobu lépp amin amin ndeysaan moom su ñaari maama bokk ndeeg bàyyi tafa nit ku baax waa loolu waaw mag ña ko wax si yenn. yenn concours man nag concours je ne suis pas fait pour les concours. Hmm. nag su may def ay concours. Hmm. ñaan naa ko yàlla bokk ak ay ku ni ay jay hmm. ay Rihanna ay Beyoncé. Ah, waaw man bis may def ay concours. Uh-huh. ñaan naa yàlla bokk ak ñooñu. ay parce que nous sommes sama cible sur musique. wa sama vision man ñu la. Mhm. yalla daf m'a dimbali ba may xalé ba légui sama musique mhm. dama jël subli xamni sama percussion war naa ko ci musique bépp ci àdduna. Mhm. ma daf leen cible comme que ñoom la bi xam ma def cible bëgg benn jour bis ñëw ma def cible ah, la continuer ah continuer waaw mas def ma def ñoom waaw def ak ñoom def ak ñoom ay son def ak ñoom lu bari ñooñu daal ñooy samay cible bu may def concours daal ñaan naa ko yàlla def ak ñooñu waaw ñaan naa ko yàlla def ak ñooñu <laughs> waaw ñu ñoo la gën a kontaan la gën a kontaan la sama téléphone yaa da ngay def say dernier mot rek. waaw ah, ma def sama dernier mot. waaw Anita may tàggoo nag ah nee nañu xaar nee nañu xaar courant waaw ko xaar kaay nii ñu féex kaay nii waaw ñu déglu ko ba mu jeex. waaw bu dee seen man Anita ah. c'est que nag Anita da ngaa kii de sànq ba ma la ne ab géwél bu ko dégg daw sax njaay jan jinne ji fa nga waroon a yab mais bul xuus ah yaa xuus kon jar na tàkk mi ngi noonu léegi nag nan dem jot naa ko sànq. waaw festival yi ma joué nag maa ngi man samay festival maa ngi njëkk a déroulé ak samay festival nga wër ñu à 2013 ñu dem joué ay festival yu bari en Europe joué ay jeudi de Perpignan mu doon festival boo xam bokk na ci festival yi gën a rëy Perpignan

wa ma dem see ji ma ñëwé nak après ci la ci la mo joxé ndigal nak dima légui man nga def say projet xam mom sama xarit la ma daal di dem commencer def sama projet boobu mais yooyu don na ay festival yi ma neex après nak légui nak bima juggé ak ak ñu dama def nek ci benn groupe bo xam dañ ko wax gis-gis bu bess ñu def musique électronique percussion ñom jëna ñom ay Womex c'est des grands festivals yo xamni ni euh, artistes ñofay dajé daje producteur képp kuy def musique ci monde bi fofu ngay ñëw waaw ba tax na bi ak bi ma ak ñoom au début nekkuma woon ak ñoom mais bi ma xasee ba ñëw ci moom ñu naan léegi am na loxo yoo xam ne dañoo am barke bu ñu nee nii rek yàlla da ciy xaw a def kii ma joué ak ñoom ñu am producteur boo xam ne moo def ñuy tourner partout dans le monde euh, d'ailleurs récemment joué nañ ay festival Rototom c'est est un festival boo xam ne moo ci Espagne képp ku espagnol da ngay dégg festival Rototom ñu ngi fa dajee euh, ñoom Peter ñoom Peter ñoom lañ fa dajeel musée ñu ñu ay règlement yo xam ñu gëna a ci monde bi je pense que mhm. ñom Peter musée ñun ak ñom mu doon festival yu ma neex parce que da nga gis ay millions de personnes c'est du jamais vu ñu nekk du jé j'ai les vidéos j'ai tous les images après ñu jé tamit ak suñu groupe boobu batay di def ay ay Paris ay sali di def ay festival aussi on avait 24 24 con dates dans le avant le corona pour printemps été avant hiver mais on a tout annulé à cause du corona. Nous nous dit euh, Hongrie, Danemark, Allemagne, partout dans le monde, Hollande, France particulièrement, nous avons une base. Nous avons un festival qui nous donne un festival qui nous donne ci année bi yalla dem dimbalu nu ci yoy nak la nek du jeu mais ba tey ci percussion man lay lay des ba légui ñi ngi ci cadre musique percussion ak électro ma koy def ak benn doomu la sec. ñu ko Mara sec waaw moom àll seetee baay. moom àll cette baay. wa loolu am na. loolu am na. man suñu groupe boobu on a un bon producteur bu nekk France mm-hmm. mais sama produit man mm-hmm. maa ngi koy produire sama bopp waaw maa ngi produire sama bopp parce que dama am sama soxna moo may jàppale mais maay produire sama bopp mm-hmm. maay defar sama bopp lépp son bi li muy bari bari mën naa def. ak seen benn xarit bu tudd Aziz Mbaye maa ngi ko xalaat bi si Demba Góor moom nga dégg maa ngi ko ana Aziz Mbaye góoru am waaw mu ngi noonu loolu dëgg la euh, waaw maa ngi waaj def album ci yeneen fanet pas fanet seulement percussion brut Sénégal lii dama ko defal géwél pour ñu dàqanti kooku ndax corona bi ta top nan lu yag ma bëgg képp ko ci képp pas ko dégg rek daal di yëngu ma ko def ko percussion mu mais bëgg def album dama koy def ak international yi comme li ma la wax Rihanna la xam bëgg invité xam nga ku dox da ngay gis da ce qui se passe dans le monde bi ma tour li monde soxla j'ai fait tout mes recherches j'ai vendu à mes yeux xam li monde bi soxla pour ñu avancer moo tax maa ngi waaj album yoo xam ni su ba soobee suñu borom c' est typiquement international teewul tamit dañ koy déglu fii dañ koy déglu bu baax ndax day ay perk lay doon mais dama koy defar ay musiciens yoo xam ne ñii ñu ngi Angleterre samay xarit lan ñii ñu ngi États-Unis ñii ñu ngi France. ci kaw seen wala studio. <laughs> boobu maa koy nettali. loolu est-ce que du sama nijaay bu càmm moo koy nee na moo koy nettali ah tos boo ban la. kon benn anecdote. sama préféré man ba ñu ma dara bañu ma dara bay fàll la njaxa sama gënal maa fekk nga boole man daal yëpp na yëpp ñëw rek mu doon njaxas ñamu bay fàll mooy sama préféré. voilà non ñamu Baye Fall ñamu Baye Fall da nga dugg ci kër ñu jox la ceeb nga dugg ci kër ñu jox la maafe nga dugg ci kër ñu jox la mbaxal fii damada fii suluxu mbalax nga dajale ko waaw moom a a neex ci palaay waaw tay nak ngeureum gi dama bëgg nga may sama temps ma Pas parce que radio la nek wa radio la nek dama jël 1 minute ma geureum sam benn mag bo xamni daf ma defal lo xamni manuma ko fay aduna du yag ba ma fekk ko muy lamine bay doomu bambay noire yaayam su may wax ci moom sax damay am ay sentiment yoo xam ne mënu ma koo dégager muy sama xarit nag ba may tuddee doom boobu xale laa boobu mënuma demuma amuma ba tey jii ñu yàlla say li may defal barke Seydina Mouhamed defaluma ko kaar ba moo man ci man lépp xarum tabax si sax moo ma koy jëndal Lamine Baye barke maam Seera Fall Dakar laay toll ni ko waa may grand mu ne ma yow waaw mooy loolu lépp mat na barke Seera Fall muy sama xarit di sama mag di sama complice di gërëm jibi fay japp na ci combat moo tax daanaka li li taxaw bokku na ci jibi fay ganna waaw dama ko def affaire mbër ñu japp ci combat bi sama ndijaay mom duma ko gërëm mom sama xarit la wax na lepp di gërëm tamit sama ben ndijaay bu baax ci man Cheikh Amar Maram Ndiaye sama ben ndijaay bu ñuy wax tamit euh, Aline Sili Ndiaye ak Matar sam di gërëm sama rak nak gërëm ibu nenne ibu nenne mom mu ngi Karim atelier Karim Fall mu xale bu yaru babakar sek sama xarit man ci man ay njaxas Sidi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom waa atelier ba yëpp ah ñoom ñoom Thierno Sène ñoom Dina Dieng waaw faa ma def ko affaire de bëri parce que dama bari ay nit nag waaw faa ñu noyyi tuuti nag ma wax ak ñoom waaw ñoom ñoom dama leen di gërëm particulièrement di gërëm sama nijaay Karim Fall waa côté boobu yëpp atelier ba foofu yëpp ak sama benn sama sama xarit bi nekk ci wet googu du wax turam mais xam xam na ki mu doon ah du ma wax turam. sama fan ñi nga xam dañoo sës man nag ñu koy wax maman bokk ndey ak baay ak bàyyi Mbaye sama mag li ma ko naan jooyu ma yaay jooyu ma moom jigéen ju man góor la Biéda moom gaynde la ñu koy gaynde la lamboo waaw ba tax na tamit lu ñàkk ndey tamit ñàkk baay taxul ñu raf la de ndax suñuy bàjjen yër nañu suñuy yaay yër nañu ñi bokk ak suñuy ndey yër nañu suñuy ndijaay yër nañu ba tax na ba suñu yaay gaañoo ba léegi yàgg na ba suñu papa gaañoo ba léegi yaay na yàgg na mais jooyu nu ko fenn ku nu gis da nga naan waaw mi gis nga ni mu demee ñëpp nu soutenir waaw mais bala ma waaw tàng bu fu ma koy daggee nag damay gërëm sama maman spécialement Ngoy Diop ndax kooku mooy borom ndékki lu neex li nag ba ñuy xale la ko daan ndékki cëpp ca kiwam am na morceau boo xam ne Baara Mbaye laa ko bëgg a def ndékki ca kër Ngoy laa ko bëgg a tuddee ca ngéwal Baara ndax moom ku ñëw mu jox la nga lekk te boo amul da ngay jékki rek génn dem doo fay dara ba beneen <laughs> wa mang la tàggoo nak ani tan nan la nit ku bax nga nit ku gore nga dundal ba say may ba wat waat ma bak la ah kon ñu dem ah tabrata xisaba ce ba ci ci tagi ki kita tabrat kita sabrat masa kita tabrat tata kitas ura kita bah ura kita bah kita dapat kita kita kita sabah kita kita dapat kita baca cekit bah ket kes bax ci bah ki kita ci ket kes ket ket anita ñi jaxlé ñi jommi ñun ñu namm suñu sabar mo bëgge won fekk fa Aziz Mbaye guru ami an dana la teral ci ngeewal rata brasakit trek brakit ah tata brat yak sa trek brakit tak dik jaro dik jarab rakit jabah tak ki jabah robah kis rakit jabah rakit jarab rak tabah bah bah kit tas batas bax ci tak kita tak tas ah may demal ba àllub Kajoor utal ma fay galañ ak galañ lu mu te ma bàkkal samay maam mbaay